aousubillah min asheytaan irrajim bismillahi irrahmaani irrahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñuy seetaan te diñu déglu ci seen émission bi ñu tudde madinatu ilmi ñu di ko amale fii ci seen site bi ñuy wax 24 actu ñu dellu siwaat tey ci fas yéene ànd ak yéen jataay yi nga xam ne baaxoon nañ koo def ak yéen ayu bis ku jot di ñaan mboolem ñi nga xam ne ñu ngi nuy teewlu ak dinu seetaan ci réew mi ak ci bitim réew ñu ngi ñaan yàlla defal leen sutura ak teraanga te yàlla defal nu ci waxtaan mu bañ a doon waxtaan woo xamante ni day jël ci sunu dund lu bari te du am njariñ waaye lum ci jël yal na nu ko yàlla defal muy njariñ te bindal nu ko ci sunu téere te yàlla defal na samix na wa na ñu sant ñëpp gërëm ñëpp bu baax a baax a baax di nuyu sunu soppee yi nga xam ne ñu ngi nuyu kii dinañ ci beral nuyoo soxna maam Xari Mbàkke Murtada di ko ñaanal fan lu gudd lool ak wér soxna moom yi Kebe ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax moom El Hadj Ndiouga Kebe di ñaan sunu kàddu fekk ko ci jàmm ak tawféex euh, tey de li nu fas yéene am waxtaane ko mooy lu jëm ci wàllu xaybu xëy mooy mbir moo xamante ni mbir mu dikkagul la nit ñi di ci wax di ci wax di wane ne xam nan loolu te mbir moomu kat ñëwagut yàlla xamale ku ko ñu bari wala xamale ko kenn sax mën naa am ndax mbiru xëybu day mbirum yàlla ku la laaj ci mbirum xëybu ne ko loolu kat xawma ci dara loolu mbirum yàlla la yonent bi salaa salaam na ko mës a dikk ci moom di ko laaj ne ko kañ la saa di taxaw mu ne ko ki koy laaj tanewut ki koy la ki mu koy laaj tanewu ko te yàlla dafa waxoon yonente buñ la laajee mbirum xëy bu ne leen xawma ci dara kon buñ demee ba jamono ñu ak sun jamono yi ay nit di ci wax di defi tamit loo xamante ni njëbar la njëbar booba ba léegi nag maa ngi ciy bëgg a wax lu yàgg di ci génneeku di ci wax di ci labyrinthe ak mbokk yi waaye daf mel ni lu ci bare bari nit ñi da dut xam seen position mooy lan ak lan mooy seen bëgg ak seen njulit fan la toll waaye mbir yi buñ delluwaatee ci yàlla yàlla rek moo yore mbir yépp mbiru yàlla la yàlla moo xam démb moo xam tey moo xam suba mooy xam lii ñëwagul te ñoom ñooñu di jéem a xamtu de kenn xamu ci kan ngay faatu kenn xamu ci fan ngay faatoo kenn xamu ci tamit wan waxtu la lay faatu di fekk te moo ne loolu de ñoom lu jaroon a lijjanti seeni mbir loolu ni mu leen waroon a itteele ëpp na sax kañ la ñuy faatu ak fan la ñuy faatoo ak nan la ñuy faatoo loolu waroon naa itteel ku nekk kuy dund ku nekk waaye yeneen di la itteel yoo xamante ni bokkut ak sa mbiri bopp loolu kii wàllu njibar nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko boole ci bakkaar yu ngand yu mag yi maanaam bakkaar yi nga xam ne dañoo wax ne yi gën a rëy la. bokk na ci wet di yàlla mooy li ci gën a rëy bokk na ci lekk àlalu jirim waaye bokk na ci njibar njibar njibar nag ci ay façon yu bari la ko nit ñi defee mooy koo xamante nii daf laa takk takk sam xel jibar la ba xamoo li ngay def ci àndoo sago keneen ki ci des nim lay njibare cim xel ci ci wàllu wax la lay njibare maanaam fexe ba jaxase sam xel ba nga xam ne yow daanaka fi mu toll sam xel jaxasoo na ba li ngay def xamoo ci dara te li ko def mooy éloquent bi ñuy waxee ak li ñuy waxee ak niñ lay jéem a naxee noonu sam xel la ñuy jibar ñii nag dañuy jibar say cir ak say kii ba doo mën a def dara bu ko defee luñ la laaj nga jox leen ko luñ la def loo nga def loo ko li ci ëpp nag war na noo xam ne de nit ñi ñu bare bare bari ci coupe du monde bi coupe bii jàll coupe d'Afrique bii war na noo xam ne ñu ci bari de duñ wax katu dëgg ñàkk wax dëgg rek daa bàkkaaru ñàkk wax dëgg bàkkaar bu rëy la kon ku mën a taxaw cib télévision ab rajo nga mën a taxaw ne nangam dina am nangam loole nga waxoon ba dat ba dikke amul firin wi de wenn firin la rek mooy la nga waxoon du dëgg nit ku wax dëgg nag daa jara moytu ci sa diineem jara moytu ci sa alal jara moytu ci sa mbir yëpp ndax ku dul wax dëgg moom kenn mënu koo comprendre li nga ko mën a comprendre daal mooy bañ koo jege bañ koo laal bañ koo séq ak moom dara <coughs> ñu jégul bokk na ci yàpp naa ne dañu bare bari déggoon nañ leen ci télévision yi ñu ne nangam dina am nangam dina am loolu amul loolu nag li ci Sénégal yi war a jàng mooy ña ko doon wax ñépp dañ leen a war a bàyyi rek bàyyi leen xam ne du nit yi waxkatu dëgg la ñuy wax mënuñu ca dara xamuñu dara ndax jibar ak nit ñi di gisaane seen xeli bopp dong la ñuy kii dañuy tànd wax tey bu subaa lanu tàndoon wax loola di dëgg ginnaaw suba ñu tànd nit koo xam ne li muy wax lépp ci tànd la loolu nit ñi dañoo war a yeewu te am xel te xam ne euh, man wi nga xam ne xaw ma dara sax mën na maa tànd tey wax dëgg bu subaa ma tànd la ma wax du dëgg kon nag li ñuy wax lépp xam na ne ay tànd la ak nattale ak i nàngam jamono yii ci coupe du monde coupe bii di ñu koy fubal ñi gënoon a dal xel ñëpp danoo jàppoon ne dina ñëw fu ñoom it seeni xel yëpp loolu la tàndoon même ki xamul woon dara sax loolu la doon wax yëf yi dina ñëw dina ñëw kon ñoom xamul dara waaye li ci am naqar mooy ñenn ñi nga xam ne dañuy jël alxuraan di ci waat ñenn ñi jël di wax ci sëñ Tuubaa loolu nag mooy naqar wi ci gën a métti te ci ëpp ñëpp nag wax dëgg yàlla boo ci seetloo sëñ Tuubaa tuddoo sëñ loolu di aw naqar wu metti giñ naa ko ci Sëñ Tuubaa giñ naa ko ci barkeb Sëñ Tuubaa màggu Sëñ Tuubaa lu ne ñu giñ ko di wax te li ñuy wax dara du ci dëgg loolu nag war nañ leen a arrêté def ci ñoomu alerte sunu kilifa yi kenn du leen digal kenn du leen wax ay ginnaaw baat bi ñoo ko yor ak dogal bi nanu arrêté ñii di wax ci Sëñ Tuubaa di woote ne xam nan te xamunu di wax ci barkeb Sëriñ Tuubaa di ci wax wax loo xamante ni ku ko vérifié la ñuy wax du dëgg ñi ngi wutal sëriñ bi ay noon yoo xamante ni kenn xamut yenn noon la te réew mi ñu nekk réew la moo xamante dañ ko bokk ak ay nawle nawle yin ko bokkal am na sañ-sañu baat ni na amee baat lan amee baat te kenn déggu leen ci ñuy wax ci yu mel nii waaye fokkat ba dàq fa boo ko tudd dàqee mu tudd sëñ tubaa ka dàq jibar boo ko waxee mu tudd sëñ tubaa nangam te yooyu ñuy wax dara du ci dëgg dara du ci dëgg nañ leen arrêté rawatina ndaw su jigéen soosu làmmañam rëy na li muy wax xamu ci dara nan ko arrêté ndax lii dinañu jural ñu nan dañoo xamut artu dañuy néeg ba lu rëy rëy ñëw ñu soog a dikk rek soog a tàmbali di wax lii nag maa ngi ko bis ni tey li wala wax magam xamoon naa ko mu gën magam waxoon naa ko moo gën magam xamoon naa ko bis tey jii wax nan artu soxna soosu ak ñu mel ni moom ñu bàyyi sëriñ bi seen caaxaan yooyu sëriñ bi nekku ci nekkuluwu ci bu ñuy jibar ak di bakkaar nanu ko bàyyi ñun ñëpp ñoo xam ne képp koo xamante ni dangaa dem ci seetkat mu seetal la ne la nangam xew na ci yow yow lam la wax gëmoo ci dara ñeent fukki guddi loo jaamu yàlla yàlla du ko nangu boo demee mu wax la ko nga gëm ko yow génn nga ci lislaam boo tuubaatut loola ba dee boo dee sawara nga jëm te kenn mënu ci dara ndax bàkkaar bu rëy la te li ñuy wax moo lay wanal ne la bu fekkoon ne nangam ku ci nekk yaa ngi génn man ab jaaro laa jaaro bi ku ko takk ak ndomba laa ak nangam lu nekk ñu wax ko xanaa ñoom ñooñu boo leen seetloo sax xam ne ñoom jékkunu gis nañ ne bunt bi buntu xaalis la nit ñaa ngi daw di ko wut si te nit ñi li ëpp ci askan wi xamunu lu bari ci wàllu seen wàllu diine gëmuñu yàlla jàpp nañ ne lépp lu nit di am amewu ko ci jom amewu ko ci ngor ame waaye mi ngi ko amee ciy pexe <coughs> loola nag tax ñu xam ne bunt boobu ubbeeku na ñu tàmbali di ci nax nit ñi waaye nanu yëg ci seen bopp ne alal jooju ñuy jël alal ju araam la ab jibar du texe ci àdduna du texe ci àllaaxira du wut limi li muy wut ci àdduna du ko am li muy wut ci àllaaxira du ko am boo ci amoon ay moobul yu tol ni uxóot maanaam montagne mu toll noonu ci ay kër ay pale ay étage ak ay oto yu gën a rafet na la leer ne oto yooyu yàgg yàgg sawara nga jëm ndax alal ji nga doon lekk lewut te wolof bi dañuy wax na lu lewut du law te biir bu ca rekk dina ràgg biir bu ca rekk ràgg mooy lan mooy sa yaram wa suux wa lekk lu lewut maanaam li gën a yey ci lekk ko mooy sawara suux woowu sawara moo ko gën a yey ci lekk ko te seetluwaat leen li ngeen di baax nit ki na am jom ami jom jomi liggéey jami ngor te ñi ci ëpp ñëpp ci télé yi ñi koy def ñi ci ëpp boo dàqee ci yoonu murit la ñi ci ëppaat ñëpp boo seetloo ay xale yu ndaw yoo xam ne amagul ñeent fukki at nga xam ne seen njàngam diine sax matagul xale boo doon gis muy taxawaalu fii mën a jàng alxuraan mën a bind ab xaatim mën a nangam mën a bind ay saare alxuraan dem yonante bee leen gënoon a dégg alxuraan foofu ci la wàcc sëñ Tuubaa ak keneen kilifa yi ñoo leen gën a dégg alxuraan foofu te mosu leen a dégg ñu ne nangam ci nangam. kon yii ngeen di def ay tappale la yoo xamante nii teel leen ko bàyyi nit ki lu mu mënta amee ngor mënu koo amee te yonent bi salaa na dane nit ki li gën a yey ci mu lekk ko ci biiram mooy li mu liggéey ci ñaqam te li ci gën a deen doonati danger mooy gouvernement bi war na jóg alerte ñi ndax parce que bu fekkee nit mën naa taxaw cib télévision ak ab rajo mën a wax ne man de lu waay mën a def lu mu rëy rëy bis boo dikkee ci man buñ la naree yóbbu pëlis man na maa fexe ba doo dem pëlis man na ma fexe ba doo dugg kaso bu buñ la tëjee tamit man na maa fexe la ma lay jox man na buñ la ko joxee man ngaa fexe ba génn kaso léegi loolu tey bu fekkee dëgg la te gëw ma ne dëgg la bu fekkoon dëgg la sax gouvernement bi da ndax yow bu fekkoon waa ji dañ koo jox ab entreprise jox ko xaalisu réew mi bu ko leeree ne moom bu ko lekkee li ciy mujj mooy du dem police du dem kaso kon bu boobaa ñëpp mën noo lekk alal réew mi kon bu boobaa fan la nuy lijjantee mbir yi fan la ñuy defaree mbir yi ah kon li ci am solo mooy ñu xam ne ñoom li ñuy wax dara du ci dëgg réew mi nag ku nekk xam na ne ñu ngi wax ne pétrole génn am na fi yaakaar naa ne kenn du kenn baatin ku ko wax ay expérience ex ñu am expérience ci wàllu xam-xam yooyu ñoo gëstu ba xam ne pétrole am na fi lu leen tee ñu wax ne Sénégal pétrole am na fi ñoom ndombe yooyu ñuy joxe ak jaar yooyu ñuy joxe am nañ ay mbokk xanaa mbokk yi leen gën a jege mun nu leen ko jox ñoom ñu am alal waaye dañuy dikk ci télévision yi di jéem a naxe di nangam am na ci ñu bari ñoom li ñuy wax ci jamonoy coupe bi duñ wax waa ju leer dañuy jéem a lëntal nit ñi naa buñ defee nii bu buñ génnee sarax nangam ak bu buñ ko génnee wut nangam ndaw su xonq soosu nga xam ne sëñ bi dara ci dëgg du ko wax waxut fii ne gileem yi bu rey bu nu reyee giléem rey naa ko dóor nañ Afrique dóor nañ nàngam ah? nit ñi nan gëm yàlla te xam ne mbir yi yàlla moo koy joxe amul kenn kenn ku ci mën a dem ne leen dama bëgg sama gàttaay bi ñu fexe ba ma njool mënuñu ko dama njooloon dama bëgg ñu gàttal ma ñoom mënuñu ko comme mënuñu loolu mënunoo joxe wërsëg mënuñu la koo xañ même ñoom buñ la joree li lay wan ne la xamuñu dara mooy dañuy boole faj wàllu médecine ak wàllu xam ñoom yi nii lim yëpp sax dangay jàpp ne yàlla mi bind sax da xanaa lii de wax dëgg yàlla yàlla gëw ma ne sax mën na ko lu nekk lu nekk ñu ne mën nañ ko amul benn xam-xam wala dara lu ñuy wax ñu ne mënumu li ci gën a dooni tappale sax da ngay dikk ñu ne man soo dikkee soo nas aajo narta fajo sax doo ñëw ci man ak nangam xeetu attiré nit yoo xam ne wane na la ah kii de kon koo fa ñëw rek aajo sa aajo faju na moom aajoom daa faju bay faju listixaar gi ñuy wax ni ñu koy waxee sax loolu dafa araam listixaar ak dama lay fanaanoo dama lay def na yow da ngaa xam di nga fanaan bay fanaanoo nit ku xamul di nga fanaan nooy fanaanoo mbiri nit yàlla mi xam nga xam ne du nelaw du gëmmentu xanaa moo war a fanaanoo mbiri nit ñi te moo ko war sax waaye yow mi nga xam ne da ngay tëdd nga bi ma tëddee bi ma nelawee lan ma ko woon kuy nelaw lu lay woon àgg ci ñeme yàlla ba soxna soo su di wax ne jibril dikkal na ma ak sëñ Tuubaa bind naa ko leetar ak yàlla dama koy bind yooyu ñu bàyyi ko ci réew mu toll ni réew mu ne quatre-vingt-quinze pour cent yépp ay jullit lañ ñu mën a bàyyi as soxna su toll noonu wala ay nit ñoo xamante ni ay xale yu ndaw yu majorité bi ñi gën a tuuti di di fooye askan wi ba ci intellectuel tubaab yi ñu jox réew mi sax jàpp na ne ñoom lu ñuy am ci njabar lañ ko mën a amee moo tax xam-xamu diine bi ak xam-xamu lislaam dañ ko war a dugal ci école français ba xale yi kuy génn génnaa la lu mu néew néew nga génnaa la xam sa diine xam sa taw tawxiid waaye lii ñu def booyal ko xale bu ndaw di la kaalawu toog ci télévision yi ak rajo yi diw sàngam ku ma jox na ngay sangu di la jox ay saafara sangoo ko ci selebe yoon ak lii na nga wut xobi nangam nanga ko boole nangam ak lu nekk ñu wax la ko lu ne mel ni lépp rek yàlla da leen koo xamal lii lu ñaaw la loo xamante ni Sénégal war na cee wax waxaat ñii nga xam ne dañoo jóg di jéem a nax askan wi di leen gëlëmal bunt yi leen ubbil ci télévision yi ak rajo yi bari na bari waaye goo xamante loolu lépp day delluwaat ci niin bu ngeen gisee nag ñu ci bari xañ <coughs> na duñ ci àddu ci wax ñoom lanu tal mooy jéem a nax lu nu mën a naxe askan wi rek ñoom seen yoon askan wi daal nañ nekk ci gëlëmteem ñu leen di nax lii tey bu subaa ñu nax leen ci pétrole bi bu ginnaaw subaa nax leen ci nangam ñoom ñu nekk ci yoo xamante ni du dara waaye ku nekk xam na ne jibar dafa araam listixaar mooy lan listixaar gi yonante bi sallallahu alayhi wasallam jàngale mooy na nga jàpp ba set julli ñaari rakka mbir mii ngay bëgg a dugg muy oto wala jabar ji ngay bëgg a dugg wala jëkkër ji ngay dugg wala place bi may dugg su fekkee ne moo gën ci man yàlla yow mi nga xam ne yaa xam lépp man xawma dara yow mi nga xam ne yaa man lépp man mënuma dara yow mi nga xam ne yaa am kàttan su fekkee mbir mi moo gën ci sama wàllu àdduna gën ci sama diine nag ma ko jàppandil su fekkee gënu ci tamit nga seetal ma la ci gën nga tànnal ma la gën loolu mooy listixaara ku nekk mën na koo defal sa bopp julli boo ko mënee ñaan ci wolof ci arab baax na boo ko mënta ñaan nga ñaan ko ci wolof yàlla dégg na lépp loolu mooy listixaar boo jógee mbir ma saa boo jógee jëm ca mbir ma mu mu tàmbali loo ca bunt boo ubbi mu ubbeeku xamal ne mbir ma baax na waaye bunt boo laal mu dëgër bàyyil mbir moomu du sa mbir du sa mbir dafa nga ne kenn mën naa nekk ci télévision la rajo ubbil nangam ma seetal la yow de sa fan wi nangam yow yaa ngi ba jëb tukki yaa ngi waaj ngoro yaa ngi waaj nangam nit ku nekk ci wér kay xanaa dina waaj ci yooyu dara dina waaj ab tukki wala mu waaj takk soxna wala mu waaj nangam wala mu waaj lu bëgg lu baax waaye lu nekk ñu ne la nangam sëy yi nu tas ci kër gi ak ñi jaxasa ciy famille kenn xamul lu mu toll kenn lii lay wan na la rek du xam-xam ak am na ci yu xam xoolal ki nga xam ne dalay wax na la tànnal jëlal numéro 1 ba 10 ka jël 1 ba ak ku mënatee jëlati 1 euh, la la la dal la nekk ci 1 bu dee lu bon lu bon loolu lay ñëw yow mi jëloon 1 bu subaa boo jëlee 7 ñu waxaat la la nekk ca set ba loolu koy du xam-xam nit ñi nu gëm yàlla te ragal ko te xam nañ jibar nit ki koy def sax day lëndamal xol lëndamal xol gi mooy dootoo jaamu yàlla <coughs> lëndamal xol gi mooy da ngay jëm mbir yépp am na ñu wax ne ñoo borom xam-xam yu doon seet ci réew réewu Afrique réew yi nga xam ne dañoo gëm xërëm ak njibar ak rendi ak nangam réew yu nekk ñu tudd ko bi ñu agsee ci Sénégal dañ na Sénégal 58 pour cent yépp gëm nañu wàllu xërëm ak njibar cinquante 58 pour cent yoo xam ne ci réew mun na mu vingt 95 pour cent yépp ay jullit lañ. ay magi lislaam nekk ci nga mën a takk da ngay gis nit ñi daanaka kenn du xam bu làmb amee dangay gis nit ñi kii takk ni ñuy def wàllu njibar kenn xamul nu toll doo xam réew mi réewum jullit la doo xam réew mi du réewam jullit waaye lii lu tiis la loo xam ne ku ci am kàddu war nga koo wax war nga koo wax saraxe saraxel nangam saraxel nangam saraxe boo saraxe te yàlla taxul nga saraxe amul benn njariñ bu mu lay fegal mënu laa fegal dara saraxa lay tax mu fegal la dara mooy da nga koy saraxa ngir jëmmi yàlla waaye saraxa booy saraxe ngir danga ciy dàqalu wala da nga ciy ñoddi sariñ sarax ba du la jariñ dara jigéen ñi fi ñu toll bu ñu tolloo ci waxtu def bagak def ay compo day mel ni rek nit ñi day mel ni gëmatuñu yàlla te njàng maanaam compo yooyu loolu yépp mbiru yàlla la da ngay jàng gëm sa bopp xam ni loo am yàlla moo la ko may waaye topp nit ñi si bëri boo ma joxee nangam di nga am bag ku dikk ci man ku bëgg palaas ku bëgg a tukki ku nu téye woon jafe-jafe nit ñi yëpp la ñuy lim jafe-jafe bu nekk ñu ne mën nañu ko te ñoom ñi ci ëpp ñëpp jafe-jafe yi ñuy wax sax li ci ëpp yooyu seen problème la am na ci ñoo xam wàllu doom lan lay wax boo sëyee di nga am doom am na ñoo xam amuñu doom sax far man xam naa ci ñoo xamante ni daanaka nangami kii yoo xamante ni maanaam ba léegi amuñu doom. te lim ci nax ay nit kenn xamut boo dikkee ma wutal la nga am doom am na ñoo xamante ni yooyu ñuy joxe yépp daanaka ñoom amuñu ko sax far du ci seen digg seen xale yi ndaw yu doon taxawaaloo da daal mën na noo bind ay tur mën noo def nangam dem ci télévision yi ak rajo yi ubbi na bunt yépp benn bunt amu na ko ñu jàll bunt bii loola nag ak ñàkk yaafus la ak ñàkk xam sa bopp ak ñàkk dund ci lu lew loo ci mën a am na nga xam ne loolu lu mu bari bari ak lu la nit ñi mën a topp ak loolu la mën a jey xamal ne la cay mujj mooy sawara dong mooy mujj alal ju lewut mënta am njariñ ci àdduna mënu ko am ci allah ab jey nag mën na laa topp te ñi ci ëpp ñëpp seen ak mujj na kon ñëpp toog di ko xool seen ak mujj jaar nañ ti ñu ci bari xamoon nañ leen ci xeet yi waaye seen mujj ku ko gis da nga yëg ne daray àdduna jarul daray àllaaxira te am na ko doon wax ne daray àdduna ñett jërul ñett àdduna jërul àllaaxira tayeel jërul ñàkk bànneex jërul gàcc àdduna jërul àllaaxira li ci gën tiis nag mooy àdduna jërul àllaaxira sëñ Tuubaa daana wax ne nit ki ñett rëdd lañ koy rëddal fii la nekkoon lii la fi def fii lañ ko def ginnaaw xam nga ne ñett yooyu mooy say mbir fii nga nekkoon di def ay tappale fii lan la def fii nga nekkoon fii nga nekkoon di def ay tappale fii lan la def loolu lu tiit la nit ki na jubal li la yàlla bind ci sa wërsëg doyloo ko te xam ne loolu mooy say mbir yàlla li nga nar a am sàcc bi jóg di sàcc dafa ñàkk ñoom ñàkk waaye bu toogoon yàlla lam ko war a wërsëgal dina ko wërsëgal kenn ku la mënta tëkku ne nangam am na fi président yoo xam ñaari président benn ñoom ñëpp toog nañ fi kenn ka dafa waxoon ne ko bàyyi ko ba ma jàppoo kenn ka ne ku nu tëkku nga tiit yow gëmoo yàlla kuy tëkkoo yi tamit yow gëmoo yàlla maanaam nit ku nu tëkku ne la dinaa la rey suba nga tiit yow gëmoo yàlla waaye kala ko waxee tamit moom gëmut yàlla ndax bakkan bi ci loxol yàlla la nekk ci loxol yàlla la nekk kenn mënu laa rey te kiilo yàlla lii sa wërsëg mënoo ko benn waaye nee na dafa tàbbi woon cib teen nee na bi mu tàbbee cib teen nit ñépp daw song ko ñu daal di dikk defe ne faatu na génne ko bin ko génnee mu daal di toog ñu génne ko daal di wut as soow jox ko ko nee na bin ko joxee soow mi mu naan ko daal di ximmiliku ñu laaj ko nag waa yow nan def ba nga tàbbi ci teen mu naa nii laa defoon nii laa doon def ba far daal di tàbbiwaat ca teen ba nee na bi mu tàbbiwaatee ci teen bi mu daal di faatu ñu génne ko mu faatu kooka dalay won ne la soow su mu naroon a naanaat kenn mënu ko ko woon a xañ moom la doon jël si maanaam minute yooyu mu dundoon moom dong la desawaatoon ci àdduna kenn mënu ko ko woon a xañ kon nit ñi nañ gëm yàlla lii nag dinañ ci dellusiwaat ndax lu xaw a jaxase réew mi la li ci gën a tiis nag mooy wax jin ciy wax di ci tudd sëñ Touba te boo seetlu woon télévision yi ay xale yu ndaw yoo xamante ni xale yu tuuti kaalawu sol ay mbaxane lu nekk ñu wax ko jëmale ko ci sëñ bi. ñenn ñi di wax lu bari di jëmale ci lislaam ñëpp na cell nit ñi daal loo mën a wax te laaloo seen alal laaloo seeni i santé laaloo seen santé maa dinañ la wax. waaye loo mën a wax ci diine ji moom baax na waaye loo loo mën a wax te laaloo seen i alal te seen i xañoo leen ko ñoom baax na waaye seen i intérêt daal lañ dul may kenn kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu àq ñëpp li ab tomb la boo xam ne danañ ko toppa toppa topp topp topp ba àgg ci incha allah rabbi nanu delluwaat gëm yàlla ki amul jëkkër na xam ne yàllaa ko xañ ki amul jabar na xam ne yàllaa ko xañ daa gënut ci moom yow tey boo demoon ñaan lu tey ba am alal alal yépp tege ci sa loxo nga am fi ñaari fan faatu lool jar na ko boo demoon ba am alal ju baree baree bari wala ngay xëccoo dara ba am ko boo demoon ba am soxna di xëccoo jigéen joo xam ne da koo xëccoo bëgg ko takk dikk ba nopp bi nga dikkee ak wér amu ci ban njariñ la lay jariñ ñaanal yàlla jaamul yàlla ci kaw suuf nekk fi jaamu yàlla bu lijjanti kañ ngay faatu kañ ngay dee boo dee mbir yees nekkal ci li la yàlla sant jubal nekk ci li yàlla sant boo dee loolu mbir yàlla la dee araamul ñàkk dee araamul yàlla mi nu bindoon bi nuy bindu sagguwunu kon bu nu rayeet fu nu dugal baax na waaye nan def ay ndigalam bul jéem a wut gudd fan bul jéem a wut nangam jéem a la jaamu yàlla nekk ci njub heure bu la yàlla rayee bu la yóbboo nga xam fam la yóbbu loolu mooy secret bi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu àq ñëpp Moussa moo nekkoon ci caméraman bi soxna Aw moo doon def montage bi moo doon def réaliser émission bi soxna Khady Niang moo ko doon monté <coughs> ñu sant leen jox leen daje ci yeneen jotaay wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu wa minnatun lana jariun